tàmmoon nañ di financer femmes yi dañ daan jël benn groupement ñëw daanaka indi lu mat 100 femmes suñu ñëwee ñoom ñëpp ñu inscrire yaay ji agro financé 20 femmes jékki-jékki financé waat 30 10 femmes am ci biir 30 yooyu 5 yoo xam ne fayuñu ñu demaat ba ci biir yeneen 5 fayuñu ñu taxaw bloqué ñi ci ginnaaw ñëpp ñu dem ba xam ne loolu du njëriñ te du yoon ci kaw loolu nag. ñu dem ba saytu chaque année daanaka ñu perte cinquante millions ñu ne nag nañ jooyanti jooyanti bi nag mooy kalabaas yi ñu teg nga xam ne dañuy jëflante jigéen ñi jaxasoo jigéen ñi ànd ak jigéen ñi liggéeyandoo ñoom di xam kenn ku nekk say problème say jafe-jafe ak say li nga xamee ne moo lay gaar ba doo mën a fay ñu ne nag ci biir kalabaas yi dina am social dina am aussi solidaire cotisation solidaire yooyu nekk ay cotisation yi nga xamante ne mooy permettre jigéen ñi di jël seeni projet di financer seen projet muy tabaski muy korité muy màggal muy fête religieuse salaamaaleykum maay Xadi Njaay dëkk yëmbal si daal yëmbal noonu di responsable des femmes ànd takku liggéey sopp sëñ Fallou yaa jaaroo muy madame Faye xam nga nuñ ko gisee ñaanal ko gudd fan ak wér yàlla boole koog bóorab këram bu baax bi muy Modou yàlla mboole leen ba ñuy màgget ndax Fatou fay daa dimbali jigéen ñi suñu wooye ba ñëw mu jox ñu financement mu woo ñu bañ ñëw jox ñu ration kër ceeb diwliñ saabu dara du manqué tubaarkàlla mu ne loolu doyatul indil ñu ay frigo indil ñu télévision indil ñu salon kër salon néeg yaa ngi may dëggu jox mu congélateur ak lépp ba ñun jigéen ñi na matuñu dara kon fat fay dañ koy ñaanal fi mu bëgg a yóbbu Sénégal yàlla na ko fa yàlla ak sëñ Fall Mbacke mi ma yaakaar tey ak teg ko fa ndax Adja Fay biyee màkka yi moo gën ci ñun kër yi moo gën ci ñun yaa ngi may déglu jeeg bu toog sa biir kër na mottoo dara ndax Faat Fay ndax ni mu sëyeeg Modou Gueye noonu la sëyeeg noonu la wax jeeg yëpp nañ ko sëyee kon may sant xaadim di sant tumaane di sant groupement bi yëpp yaa may déglu di sant waa bureau bi ndax nag fekkum liir bu neexee nday jaay jàpp ci mag ya tey Fat Faye lu rek waa bureau bee tax yaa may déglu financement yi xam na ñoom ñu defal premièrement avant ah, financement yi tabaski na jot jéeg yëpp di yaakaar xar seeni jëkkër mu ñëw na leen ku nekk na nga jël xar heure boo xëy joxe 1000 francs yaa may déglu ceeb beeg diwliñ beeg poobar yeeg kaani yeeg moutarde yeeg yëpp mayonnaise ak lépp doon na mu dara ak moutarde soo ko jëlee mille cinq cent ngay joxe yaa ngi may dëgg congélateur ba taxaw six portes six tiroirs boo ko jëlee trois cent mille weer vingt cinq mille chaque jour deux mille cinq cent ngay dugal micro onde loo mënti su waxtaanee ak yow Xaadim Gueye 2500 nga di ko jox waxatuma leen na soo amee joxe boo amul heure boo amee joxe du la woo du la kar karre du yóbbu sa kon Fatou Faye dafa baax ci réew mi association ci réew mi képp ku toog ci réew mi muy président Macky Sall Abdoulaye ba Diomaye ñëw Fatou Faye dafay social ci réew mi di dimbali nit ñi te yàlla tax sonalul kenn xëccul kenn woowul kenn soo baax na soo mu toog xaar ba nga mën yàlla na ko yàlla jàmmal wasalaam dama ndigilee ma sonal waaye moo duggee jëkkëram jooju yàlla na ko yàlla ak yonent beeg sëñ Fallou Mbacke Baye ak Fatou ñun gi da caaro kew nam atuñu dara moo nekk ca mairie ba ànd ak ñoom Modou Mati tubaarikàlla macha allah namuñu puso sax bu watee boo ko foree jël ko kon yàlla na ko yàlla ak sëñ Fallou Mbacke téyel boppam ba fépp fu mu bëgg ci senegal yàlla te ko fi suñu amoon fukk yu mel ni Fatou Faye Sénégal kenn dootul yëgati lu metti yàlla na yàlla def jàmm jërëjëf yéen doom yi ngeen xam ne fuñ nekk da ngeen di ñëw. waa asalaamaaleykum yéen waa département Kër Massar man maa ngi tudd Mamadou Niang ngi dëkk Pikine adhéré nag ci Yadja Yaye Dia Agro bu ngeen ko déggee mooy société boo xam ni madame Fat fay madame Guèye moo ko sos lu mu ciy def développement rek ak social di jàppale jigéen ñi di jàppale femme de développement yi di jàppale ñi nga xam ni néew ji doole lañ ndax tu ñëw kii fi tey Kër Massar gis ngeen bagage yi mu indi teg na fi sa diw niñ diw ko diw yu mag yi ak saaku 50 kilos yi teg na fi omo teg na fi ay congélateur teg na fi machine à laver teg ay split teg na ay frigo lu ne teg na ko fi lépp ngir jëmbali jigéen ñi xam ne seen loxo jotul seen ginnaaw ak borom kër yu ndaw yi nga xam ne seen loxo jotul seen ginnaaw ki nga xam ne tabaxal kër ba mu jekk jox la caabi kon madame Fatou Faye madame Guèye lu dul jàppale ko ak di ko sant parce que lii muy liggéey lii état bi la waroon lii gouvernement bi la waroon tey jigéen ñaa ngi nii dëkk baa ngi nii politique baa ngi nii ci dëkk bi kenn ku ne yaa loo lekk. ak loo ak sa njaboot moom mu jóg wut si jigéen ñi jigéen ñi ku ni jigéen ñi ni kër yi ndax kër yi ñooy jàppale borom kër yi ndaw yi ñooy dundal njaboot ji man mi sax bu ma xëyee di jàngi sama doom di jàngi sama yoon nekku ci jigéen ñee koy toppatoo man damay tëdd fa ma tëdd jóg toppatoo leen mi dem jàngi kon Fatou Faye ci loolu lay dox ci social ngir dimbali jigéen ñi kon lii muy def yal na ci am ndam yéen waa 2A Fatou Faye jigéen ju jàmbaare ngeen jigéen am ngor jigéen ñu tabe Mamadou Gueye nag borom kër ñu koy béggee di ko kontaan ñun waa Pikine nga xam ne ñun moo ñu yoral Pikine yor AS Pikine liggéey liggéey bu rëy liggéey bu rafet bu rafet football xale yaa ngi football ñu leen jaay yi bitim réew ñu jariñ seen jaboot kon Fatou Faye ci tànk yoo la jaar kon ñun waa nu ay fierté lañu ci ñaar ñi muy Modou Gueye ak Fatou Faye kon yéen waa Kër Massar tey yéen a aaye bër ki demee dem Kër Mbaye Fall liggéey fa liggéey bu rëy liggéey bu liggéey bu am solo kon bég na nu kontaanu jërëjëf madame Fatou Faye madame Gueye borom kër yi nag ah ñu wéeru kaw Fatou Faye rek ndax kat jigéen ñu mën góor te jàmbaar la yow boo jox se dépasse bu matut jigéen ñee koy mottali ñoo xam li diw di jar ñoo xam man xaw ma lu saako ceeb di jar xaw ma litre diwlin di jar xaw ma lu ama di jar da ngay xëy joxe li nga joxe rek ñu liggéey te loolu lépp Fatou Faye nag mi ngi jàppale jigéen ñi kon bëgg nañu ci entretien bi kontaan nañu ci moom kon yi muy liggéey yàlla na jëm kanam merci beaucoup nag tumaani nag kontaan nañu ci moom ndax li lépp moom la merci beaucoup salaamaaleykum ginnaaw bi ñu santee yàlla di julli ci yonent bi di sant sunu ñaari waajur madame Guèye ñu fi taxoon a teew muy yaaja ak guro madame Faye laaw la cat ki nga xamante ne moo woote développement ci réew mi ki nga xamante ne moo woote social ki nga xamante ne da dimbali femmes yi rek a ko tax a jóg da jox ceeb nga di ko fay nànk-nànk jox la ravitaillement complet diwlin ceeb kaani poobar moo xam loo bëgg ci sa biir kër mu jox la ko jox la congélateur nga di ko fay nànk-nànk madam nee na bàyyeegul day dem moom taxawagul da lay jox tubaarkàlla terrain nga di ko fay nànk-nànk madame bàyyeegul day dem da jox oto ngay dawal voiture da la koy jox da lay jox scooter baa boo bëggee cag-cag mu jox la ko kon kooku xam ngeen ne moo woote développement ci réew mi madame Guèye kon dañ koy ñaanal yàlla na taxawaayam yàgg li mu mbébét ci femme yi yàlla na ko sunu borom yeggali may ko jàmm may ko wérgu yaram ba mu yeggaleeg sagoom nit ku baax la ku gore ki nga xamante ne lu mu wax def ko bu génnee gën gu toogee gën lu mu fekkee faj ko te ñibbi man de engagé naa man maa ngi ci ginnaawam fu mu ne maa nga fa luy kaa bi ah yaa jaar jaar yaa ngi nañu adhéré parce que am na njëriñ am na njëriñ te lu am njëriñ des koy topp am déet Yaa Ja société boo xamante ne la woote na ci réew mi dimbali femmes yi woote na nga lu mu la jox danga koy fay par nànk nànk nànk ba ba muy mat kon kooku xam nga ne développement la woote ci réew mi